na ba toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci xibaaru marax yi bokk na ca ponk yi ca gën a fës la xewoon euh, démb ca tribunal d'instance ba ca Ziguinchor moom àttekat ba daal dina sàkku rek ñu daal di euh, yóbbuwaat Ousmane Sonko ci liste électorale yéenu ko fa génne woon loolu itam di euh, wax rek lu jëm ci bokkam ci jongante palub njiitu réew atum 2024 agent judiciaire de l'État moom àndut benn yoon ci bile dogal di ngeen dégg ci biir xibaar yi eh, ñi koy layool waaye itam eh, société civile bi nga xam ne ñoom eh, danoo rafetlu bile dogal ñoom it tey nee ñu yàgg nañoo artu ci mbir moom ile ne nag moom Ousmane Sonko gisuñu lu taxoon ñu mën koo lànkal mu bañ a jëli fichier jaarale ko ci mandataire am moomu di Ayib Daffé bu leen fàttalikoo ba ñu joxe fiche yi ba mu demee dañu koo dàqoon ne moom Ousmane Sonko moom fa teewal bokkut ci liste journalistes mbokk yi beneen ponk itam bu ñu fas yéenee waxtaanee muy ca diwaanu Thiès ak sunu euh, takk der yi nekk foofee ci diwaanu Thiès yëkkati nañu euh, sunu raaye réew jëm beneen réew euh, muy centre Afrique lu jëm nag ci dox fa tànki jàmm moo leen yëkkati ci gàttal téeméer ak ñeent fukk ci sunuy takk der jot nañu itam seen drapeau waaye itam yabees na leen ci ana ban taxawaay lañ fa yéene am bu ñu demee foofee ca centre Afrique wàllu ji seeni nawle leneen itam lu ñu fas yéene euh, waxtaane muy euh, lu jëm itam ci njàng ak njàngale euh, campagne bi ñu fas yéene dëgmal mu aju ci jongante palub njiitu réew ñenn nag ci ñi yëngatu ci wàllum njàng ak njàngale ca Linguère nee ñu la ñu bëgg mooy mu bañ a am benn tolof tolof wala boog benn njeexintal ci njàng mi ndax dañoo gis ne saa yu xew-xew yu jëm ci wàllu politique di faral di am dañuy gis ne njàng mi day xaw a gàllu góose euh, beneen ponk mbokk yi mu li jëm ci tàggat yaram ak Coupe d'Afrique euh, des Nations CAN 2023 sunu gaynde yi nag euh, bokk ci groupe boo xam ne ñenn ca seen nawle la ñu lañ tey xaar ku ci mel ni Gambie ak ginne ñuy réew yoo xam ne daal ñoom match yooyu nga xam ne dañu koy amal fii ci seen dañ koy am ak sunu gaynde yu Sénégal yi ñoom dañoo am yaakaar ci seen seeni football kat mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu faram fàcce incha allah. rafetluwaat euh, ànd beeg euh, cofeel gi ci programme yu télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy dooree ak communiqué de presse bi nu xaatim euh, muy lome ak Dakar tey yemook fukki fan ak ñett ci weeru octobre atum 2023 ñenn ci doomi réewum Sénégal kilifa yi ña ngay sàkk ci ñoom daal ne ñu gaaw bàyyi nu mu gën a gaawee Alioune Sané ak ñëpp ñi nga xam ne dañ leen jàpp te neen itam bañ leen di jàpp defuñu woon lenn lu ñaaw xanaa euh, di dox euh, li nga xam ne mooy lañu moom muy di xeex euh, seen démocratie du samay kàddu xaati communiqué boobu moo ko xaatim ñi ko def nag di ay kuréelu wala bokk kuréel yuy saytu ak ak yelleefu doomu aadama muy mbootaay yoo xam ne daal ñenn ñi ñu nga dëkk Burkina ñeneen ña Mali ñeneen ña Togo Sierra Leone mu mel ni Nigéria Sénégal waaye itam ay réew yoo xam ne euh, dañoo bootu ci mbir moom lee ñoom ñoo xaatim communiqué boobu di sàkku ci kilifay réew mi euh, ñu bàyyi euh, ñi ñu ne dañ leen a teg loxo te dara waralu ko ni ma ko waxee mooy doon xeex seen démocratie ak itam seen liberté ñu wéyal xibaar yi wax itam la xewoon niki démb ca Sigicoor mu mel ni waxtu wi euh, naga ni démb euh, foofe ca Sigicoor layoo ba daanoo woon layoo bi nag mi ngi aju euh, ci mbiram Ousmane Sonko ndax dañu ko dàqoon ci list yi ña koy layool yóbbu mbir mi ca yoon waaye dafa mel ni attekat ba dafa ànd ak ñoom ndax ne moom Ousmane Sonko lanu ko dàqe woon nañ ko neenal ci gàttal nañ ko delloowaat mu duggaat ci list yi agent judiciaire de l'État moom nag àndul benn yoon euh, ci dogal boo bilee ba tax na sax ña ngay xaatim ab communiquer euh, di wax ci mbir moom yi dañ ci ànd ak leeral yi Mamadou Fall. verdict bi nga xam ne moom la président bu tribunal instance bu Ziguinchor génnee nag tax agent judiciaire de l'État yëkkati xalimaam bind nga xamante ni kon verdict bi moo di ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi agent judiciaire bi nee na kon condition procès yi respecté wuñ ko. moom xaatim na ci ab communiqué ne juge bi kon arrêté wul woon di violer li nga xamante ni mooy lii di procès bi daanaka diirub audience bi yëpp toll ci fukki waxtu ak ñett moom ba tey nee na juge bi respecté wul li nga xamante ni mooy récusation bi nga xamante ni avocat yu état du Sénégal dañ ko def ci moom teewul mu joxe bi le verdict moom agent bi daal di ne ñaawlu li nga xamante ni juge bi kon rakk la ci kenn ci adjoint maire Ziguinchor bi bokk ci Pastef mu ne kon ci circonstance yu garaaw yooye moo tax état bi nee na dana def recours ngir kon dakkal ba mu dagg bile décision ngir loi ñu indi waat ko waaye jàpp na ni Ousmane Sonko moom mënatuñ ko dugalaat ci liste yi communiqué bi nga xamante ni rek metti na waa UMS ba ñu xaatim ñoom it seen communiqué union magistrat yi ne ñoom dañoo waaru ginnaaw bi ñu gisee li nga xamante ni moo di communiqué bu agent judiciaire de l' état ñoom waa UMS di condamné kon li nga xamante ni mooy ñu jàppee ko ay attaque jëmale ko ci li nga xamante ni moo di ab juge bu joxe ndogal ci ni ko loi maye. UMS fàttali nii li nga xamante ni débat judiciaire la ñu ngi koy def fi nga xamante ni mooy ca tribunal ba waaye du par voie de presse ba tey bu fekkee am na benn partie boo xamante ni ci wàllu procédure bi jàpp na ni ay intérêt dañ ko lésé mën naa def kon ay recours. ci ni ko luwaa tërale at ci mboolem juridiction bi nga xam te ni xëy na compétente na mu fàttali nii yii de action yu mel nii dañ ko war a dàq kon ngir bañ a ñaawal li nga xam te ni moo di indépendance su justice wala ñu bof li nga xam te ni moo di honneur ñi nga xam te ni ñooy àtte ba tey UMS di sàkku ci parti yi fu ñu mënti nekk ak lu doon seen statut nekkoon nañu ànd ak courtoisie ak délicatesse ci li nga xam te ni moo di ay ndogal yu justice jël du Fall ñu jégalu sànq ci njuumte gi kon UMS euh, Union magistrat yu Sénégal euh, ñoom nag kanu ànd rek mooy attekat ba ci dogal boobee la leen jaaxal mooy kàddu yu tukkee ci euh, agent judiciaire de l'État gannaaw layoo boo bilee ñu des ba tey ci mbir moomee ñu yëngatu ci wàllu société civile rafetlu euh, euh, àtte baak na mu mujjee ñoom mu njaay Cissé ak ñoñam euh, ku ci mel ni Babacar Fall bu Gradec ne lii bettu leen ndax yoon liggéeyam képp la def ndax ñoom dañoo gis ne moom Ousmane Sonko lu jëm ci wàllum candidature am du ñoom ñoo ko ko war a tere waaye conseil constitutionnel mooy jël dogal ba mujj Pape Sangone mbay ak alxasan Ba ñoo ko seeti woon. ndam bi nga xamante ni droit moo ko am buñ sukkandikoo ci secrétaire général groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative ak bonne gouvernance Ababacar Fall xamle ne lu jëm ci wàllum radiation ci liste électorale yi am na ay dispositions yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci code électoral bi ñoom ñoo ko encadré. bu fekkee nit ki ko radier en vertu de l'article l da nga ko ko war a notifier au dernier donc domicile connu je pense que loolu yëpp nekkoon na ay problèmes yoo xam ne donc amul. n'empêche que donc avocat yi donc def nañu recours au niveau du tribunal d'instance de Ziguinchor parce que foofu la Ousmane Sonko bindoo donc foofu rek la ñu mënoon def donc recours bi démb gis nañu juge bi àtte na ko te vraiment dafa wax yoon. naka noonu kon bu weesoo Ababacar Fall mu si Cissé itam jàpp ni fiir ci la am jëm ci wàllum suñu yoonu réew waaye itam ci suñu démocratie. justice noonu la war a demee juge yu ñoo war a moomal seen bopp juge yi waruñu xaar ku leen jox indépendance juge si suñu système dañoo war a indépendant waruñu xaar sax ku leen jox indépendance parce que système bi noonu la demee. mu yokk ci ne moom directeur exécutif bu ONG trois d yenn réaction yi nga xamante ni bu fekkente ni ay dogal am na ñeel ñi fare ci kujje gi te ñu am ci ndam dafay wane ni rek problème am na waaye li ci mënti ne conseil constitutionnel moom moo am kàddu gu mujj ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo mën a nekk candidat am déet. direction générale des élections dafa juum ci mbirum fichier kenn donc cundum moo am pour wax ci candidature yi ci élection présidentielle muy conseil constitutionnel texte bi nga xam ne muy code électoral muy constitution bi waxul dara ci nan la ñuy jëlee fiche yi kan moo ko war a jël à part bind ne candidat ko war a jël rek mais est-ce que vérifié nañ ne ñi fa jaar ñëpp war nañ mën a nekk candidat tollooguñ ci kan moo mën a nekk candidat. Ababacar Fall ñaawlu itam yenn attitude yi nga xamante ni seetlu nañ ko ci tribunal instance bu Ziguinchor ci audience bi mu jàppee ko ay tentative blocage wala sabotage action de la justice. gis nañu euh, avocat wu nguur gi. def nañu lépp pour sérénité bañ fa am parce que juge bi muy jël décision gannaaw bi mu suspendé audience bi ay quelques minutes dem retiré wu délibéré ba muy ñëw euh, courant yi dañoo coupé est-ce que loolu euh, lu ñu def expert ab tayeef la. wala est-ce que vraiment concours de circonstance la bon kenn xamul mais loolu yëpp je pense que donc dañ koy ñaawlu juge bi muy joxee décision dogalam donc presque mu nax ne dafa taal torche vraiment pour euh, lire donc décision procédure bi jeexut avocat nguur gi fas yéene def recours ca cour suprême am nañu nag fukki fan ngir def ko comme ni ko article L44 bu code électoral waxee Alxasan Ba ñu des ba tey ci xibaar yi wax itam lu jëm ci euh, wormaal sunuy institution loolu euh, Samba Ndiaye bokk ci ñi fas yéene ñi am yéene samp seen dënd jongante palum njiitu réew euh, ne dafa war ndax doomu Sénégal yi dañoo war a jox cër li nga xam ne mooy sunu institution bu koy wax nag xelam ne du dem ci dara lu dut lu jëm ci wàllum yoon fii ci réew mi dañu koy teewlu ak Chérif Dia. day xam ne moom mooy yoonu ndax yoonu Sénégal moom bu juge tëralee dara dina am ñu mu neex dina am ñu dul neex kon lii tax jàmm am mooy lépp lu tribunal tëral ñu jàpp ne loolu mooy moo war a nekk yoon bu dee du yoon yoon may na la nga dem ci feneen kalaame ko kon loolu yaakaar naa ne mooy tax réew mi am jàmm ba tax na may woo sénégalais yépp ne leen nañu bàyyi xel ñun ci suñu programme man sama ndax sama programme premier bi euh, nga xam ne mooy pàcc bu njëkk bi ci citoyenneté maanaam dañuy fexe ba sénégalais bi gëm boppam sénégalais bi gëm réewam gëm li nga xam ne moom mooy li li li ñuy wax institution. Hmm. loolu bu ko Sénégal yëpp gëmee dina indi jàmm. ñu wax itam ci keneen moom it ku ne euh, candidat la muy Mouhamed Boun Abdallah Dionne nekkoon ci APR moom nag euh, ca Ceeskaay la euh, demoon kenn ci ay nawle APR yi moom it génn na APR di Habib Niang foofee ca zone nord la nekkoon la nekk sax ba tey ci diwaanu Thiès moom génn na APR fekki Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci jongante palub njiitu réew 2024 meeting bi ñu doon amal di waxtaanee wàllu parrainage Cheikh Anta Diop ak Sey Latir Pire ñoo fa teewaloon télévision Futur Média. coalition Dionne ak Habib Niang nekkoon APR tey jii joxe nañ loxo ba ñoo fas yéene ànd ci élection tànneefu njiitu réew ci atam 2024 Habib Niang mi fi nekkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar ne nag li tax mu taamu Boun Abdallah Dionne ànd ak moom moom rek ko xam te nag dina sóobu bu baax lu jëm ci wàllu parrainage yi. monsieur le président yow rek bu soobee yàlla gis nga kees fan la ko koy ñun yaakaar naa ne li ñu jot tegu si table bi sama baat ci kaw sama loxo ci kaw amul kenn ku xam ne tey leader nga pré doole nañ la nekk nga si nguur gi am na ko président balaa ngay dem dinañu teg si loxo trente mille signature. yu wóor

parrainage bi na gaaw ñu def ko suñu gannaaw commencé taxaw ci pôle programme de la coalition Dionne 2024 dekkal jàmm dekkal jàmm jàmm. daanaka militants yi jóge woon nañ fu nekk ci quartier yi nekk fii ci diwaanu Thiès ak ñenn sax jóge ci région yi ñoom ñii de teeru nañ teeru bu mag. fii ci diwaanu Thiès Mohamed Boun Abdallah Dionne. Cheikh Anta Diop ñu doxantu ba diwaanu waalo foofee itam euh, ki fa jiite mouvement authentique national africain ne itam la mu bëgg a xeex rek mooy lu jëm ci wàllu mbëkk mi dafa gis ne euh, diwaan boobu ndaw yu bëri ñu nga cay euh, réer mër wala boog ñu ñàkk ca seen bakkan moom Amar Thioune itam nee na lu jëm ci njàng mi gën a ñoŋ bokk na ci ay farataam ndax abri provisoire yooyu da caa xar tànku tubéyam euh, ci ànd ak euh, Ousseynou Diop ak Habib Seck. Amar Thioune di njiitu mouvement authentique national africain maanaam bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo war a dem ci élection présidentielle ci atum 2024 moom nag ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko fii ci Sénégal nga xamante ni doon daje ak ay militangam daan nay wax ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ni tey jii ndaw ñi dañ koy jànkonteel tax mu indi jafe-jafe ci réew mi. ñaata ndaw ñooy dugg ay bateau di naan ñu ngi Barça wala Barsaax est-ce que ci gis-gis bu mu am Sénégal recherche yi nga xamante ni mi ngi koy am at bu ne war na mën a tax nag budget ñu mën ko xoolaat moom nag leen loo xamante ni ñaawlu na ko jëm na ci wàllu njàng mi mu gis ni nag abri provisoire yi dafa doy sëkk ci réew mi. lu nekk ci réew boo xam ne nag day créer 15000 milliards de richesse par an avec un budget de 5000 milliards. taxawal man nag sama principe mooy lan zéro abri provisoire au Sénégal incha allah. zéro abri abri ci école yi abri provisoire mooy lan mooy que yi da ngay dem taxawal bëgg a jàngale amoo tabax foo jàng ñu tabaxal mbaar nga jàng fa ak naaj bu tàng bi ni moom Amar Thioune daal di xam ne nii lu jëm ci wàllu parrainage bi daal nañ koy tàmbali ma ngay nag dànkaafu askan wi ngir ñu bañ a ne kenn ñu leen di jox koppar. da ngay gëm li ngay def parce que nit ki bu la joxee ñaar junne wala ñetti junne tey bu ëllëgee nga am sa doom mu taxaw fii di taxawaalu amul liggéey bu ko jooytu fenn yaa ko war a jooyal sa bopp. njiitu mouvement authentique national africain daje woon ak ñi nga xamante ñoo nekk ci wàllo ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko nee na Sénégal dafa war a doxal boppam waaye ngir loolee mën a am ma ngay sàkku ci ndaw ñi ñu gën a gëm si Ousseynou Diop ak Habib Seck tey euh, wal ñu foofee ci diwaanu Ndar ñu wax itam ci euh, ba tey ci jongante palub njiitu réew bi euh, atum 2024 yëngatu ci wàllu njàng ak njàngale ca Linguère ne bu ñu sañoon du am benn njeexintal ci njàng mi maanaam ci gàttal njàng mi daal ñu bañ koo salfaañee loolu nag la ñu wax jaarale ko nag ci ay ponk yu am solo ci teewaayu du Moustapha Ndiaye la ak Sidi am fexe ba élection présidentielle yu vingt 2024 yi bañ a am benn jeexital ci njàngum xale yi mooy yi tey parent d'élèves yi nekk fii ci département bu Linguère. parce ko ku xam élection ku xam campagne bu ubbee riir mi loolu moom wax dëgg yàlla euh, tiit nañ ci lool. ñu xam ne euh, bu dugutoon nag jàng xam-xam ba ñu toll fii kon ñoom seen xel du xalaat sax nekk di xëccoo réew mi kon ak lu ci mënti xew it nañ bàyyi xel tuut tànk yi ci ginnaaw. pour lu ñu mën ci jàppale leen. inspecteur bii ñu dénk wàllu éducation ak formation jàpp ne enseignants yi. war nañ see bàyyi xel teel a door programme bi ngir jàppale xale yi. enseignants yi la ñuy woo rek ñu jéem a concentré wu jéem a def le tout pour que dès les premiers mois ñu fexe ba nga xam ne bii vraiment li ëpp ci programme bi dinañ ko mën a wéyal quoi. waaw quantum horaire bi xaw naa si am tuuti tiit parce que tamit dina am ay enseignants yoo xam ne mën nañ am ñu am permission pour dem nekk ci campagne électoral beeg yooyu mais ñooñu tamit li ñu war a def mooy laata affaire bi di ñëw ñu jéem a évacuer le maximum ci programme bi. parents d'élèves yi acteurs yi di ñaax xale yi ngir ñu soobu ci njàng mi te moytandiku lii di réseaux sociaux yi. waaye li ñuy xaw tiit ci ñoom daal xanaa moom mooy li ñuy tuddee réseau réseaux sociaux yi te loolu dañu ci gën a ñaax suñu mbokk parent yépp parce que jàngalekat bi mën nañoo fexe ñoom ba gox yi nu nekk di jàngale ci béréb yi ci école yi ñoom jël nañ fa ay matuwaay. ba bu ñu la gisee nga takk écouteur sax ñu nangoo li nga yor. doom yi bu ñu jàngee ba ñëw lii di téléphone lii di internet lii lépp ñu teg ko fële am benn temps boo xam ne dañuy consacré wu si seen njàng bu ñu demee ba jàng ba pare nag am moment de loisir yoo xam ne mën nañ leen permettre ñu nekk ci mais li am ba li li am ba des daal mooy que ne nekk na benn réalité boo xam ne bari na li muy euh, euh, gàllankoor xale yi daal. ci ndaje moomu waxtaanee nañ fa njëriñu njàng ak naka lañuy ñuy xale yi ngir ñu nekk ay citoyen modèle ngir mën a tabax Mouhamadou Moustapha Ndiaye ca Linguère toogal fa télévision Futurs Médias ñu wax itam ba tey xibaar yi ak euh, li nga xam ne euh, moom mooy euh, Modou Diagne Fada mi jógee xam ngeen ne ca bopp Sonacos ndax dañu koo tabbu mu fekki gouvernement bi jëwriñ la ñu yëngatu ci wàllum mbayum gerte ak itam ndaamaraas fi ci réew mi ne bu ñu sañoon ka fay ñëw itam dina àggale liggéey ba fa njiital Sonacos ba woon def waaye itam bëgg nañu campagne ren ji jëm ci wàllu gerte gi waaye itam euh, jëm ci ndaamaraas gi euh, ñu bañ am daal benn bon boo xam ne euh, dañ leen ko yoreel Boubacar Kunta jiite li nga xam ne moom mooy filière anacarde fii ci Sénégal ay kàddoom nag ma ngi ko yëkkati ca Fuladu ci teewaayu Abdoulaye Diallo. ministre monsieur Modiane fadal qui vient d'être nommé te mu nekkoon njiitum Sonacos muy koo xamante ne liggéey nañu ak moom lu bëri sax si si si gerte gi même si anacarde bi e, ñu ngi koy féliciter si nomination bu bees bi. léegi nag li ñu ci mën a wax mooy e, il faudra que Sonacos léegi mu mun a définir benn stratégie boo xamante ni produit bi gerte bi man mënoo comprendre gerte Sonacos gerte. chinois wala beneen étranger di dominer Sonacos si collecte bi loolu pour man c'est c'est y a y un problème de stratégie wala un problème technique je pense que le nouveau directeur général bi dina ko comprendre Mamadou Diagne Fada le le DG de l'ex DG de la Sonacos avait compris demoon na ba di def ay prix de promotion daaw gerte demoon na ba quatre cent cinquante mais gis na même loolu Sonacos presque vingt cinq mille tonnes kese la am et ça veut dire que moment bi ñuy jël yenn décision c'était tardif et loolu yëpp lu koy waral peut-être c'est un problème de de stratégie. quant à l'anacar ñun lu ñu siy ñaax Sonacos mooy ñu jël usine Ziguinchor ñu transformer ko def ko benn unité de transformation d'anacar Sonacos bi fi Modou Ndiaye Diagne fa la nekk fii vraiment dugg na si njënd. aywa ñu dem itam ca diwaanu Thiès li ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi camp tropical GMI euh, bu nekk ci diwaanu Thiès ñoom euh, dalal nañu xew-xew bi ñu doon jox euh, sunu raay réew mi sunuy takk der yi fas yéene dem ca centre Afrique ngir lu jëm ci wàllu maintien ci jàmm ñoom daal ñu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukk xew-xew bi ci teewaayu Cheikh Anta Diop ak say latiir la ameewoon toll nañ ci téeméer ak ñeent fukk di ay officiers sous-officiers gradés ay agents de police am na ci sax ñaar fukki jigéen ak juróom-benn ñoom ñi ñoo war a dem fële ci centre Afrique ngir teewal fa Sénégal mën a taxaw aar askan wi indi kaaraanga ci réew mi. MINUSCA 9 pour remplacer MINUSCA 8 bi nga xamante ni moom moo fa nekkoon léegi nag unité bi comme niñ koy faral di defee rek day am ñetti unité opérationnelle day am aussi. unité de soutien logistique mooy maanaam ñiy jàppale opérationnel yi pour ñu mën a matale seen liggéey à côté day am aussi logistique bi unité de soutien bi à côté si biir unité logistique bi day am équipe médicale comme ni ko FPI yëpp di amee. république bu Centrafrique jamono yi nekk ci ay jafe-jafe lu jëm ci wàllu sécurité bi néew na fa lool ba tax na kii di Ndiaga Diop mi nga xamante ne moom mooy directeur groupement mobile d' intervention ñaax na nag takk yi bu ñu demee ñu ànd ak xel ak dal. bañ a kenn commissaire de police Abdou Aziz Diop mi nga xamante ne mooy commandant contingent bi nee na kilifa yi lii ñu leen digal daañu ko topp tey it drapeau bi ñuy yóbbu fële ci Centrafrique dinañ fa sigil réew mi. sàmm kaaraange civil yi mooy ñi nga xamante ni bokkuñ ci guerre bi sàmm kaaraange personnel Nations Unies dimbali tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk en conflit boobu ba. accords yi ñu jot pour jàmm sax seen diggante ñu mun ko mettre en œuvre. def nañ fa nag ab cérémonie delloo njëkkal nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk der yi war a dem fële ci centre Afrique amal nañ fii ci camp tropical ab défilé bu mu ci ayib. Cheikh Anta Diop ñu jaajëfal ko itam wax euh, lu jëm ci nag euh, naka rek la ñuy féexalee centre ville li ko dalee euh, rond Sandaga ba boulevard de la République ñu ne daal dogal ya toppees na ko bu baax gis ñu itam oto taxaw Euh, taxaw loolu nag ñenn euh, ci askan wi rafetlu nañu euh, dogal boobile Fatoumata Touré ak Alioune jaañ lañ ci àndal ci ay leeral. boo jugee rond point wàcc fi nga xam ni moo di Ponty jëm place de l'indépendance ba ci boulevard de la République ñu mën a gis ni opération de désencombrement bi nga xam ni sous-préfet Dakar Plateau moo ko initié mu ngi am jeexital. ci yoon wi doo gis benn table wala sax oto mu daal di gaare ci anam bu jaarul yoon loole nag nekk benn initiative boo xam ni ñii ñu dajeel ñu ngi koy rafetlu. il a parfaitement raison parce que fi nit ñi war a dox piétons yi fi ñu war a dox piétons yi dem nañ ba léegi ci tali bi ñuy dox oto yi di leen fii di leen di def n'importe quoi. te fi li mu waroon dox nit ñaa ngi fa gaare ay seeni oto jënd seeni parking ñu ne euh, maire bee leen ko jaay te loolu c'est pas normal xam nga ne pas normal fi nit ñi war a dox ñu teg fa ay bagage teg fa ay ay oto parking yi ñu jaay leen ko ci lu dikkul dara te kenn du wax il a parfaitement raison man ànd naa ak moom ci li mu def. ville bi parce que c'est une capitale Dakar et c'est normal ñu am trottoir pour nit yi parce que nit yi yëpp ñu ngi dox ci tali bi. waaw c'est pas normal. wante lu mu ci munti doon ñoom ñi di rek di ñaan mu am li nga xam ne nag moo di suivi. suivi wa il faut mu am. il faut ñu teg fi ay nit yoo xamante ne loolu moom moo warta am ñu jël personnel yoo xam ne dañ leen fay teg mais pas wax rek dem wax teg fa la ñu teg leen fa fu fa kenn gaare waaw bu fa kenn gaare bu fa kenn lal yee nit ñi am fu ñu dox xam nga nit ñi circuler quoi mais nit ñi da ngay ñëw bëgg jàll nga jàll fële teg ne ndax seen propre magasin boo xamante ne xam nga génnee seeni valise teg ko nii te kenn du wax loolu c'est pas normal suivi boobee nag dafa war a door état bi daal di jàppale bu baax ñi nga xam ni ñoo di jaaykat yi wutal leen fu ñu ne waaye tamit defar ay parking yoo xam ni. Il y a une partie qui est terminée on a regardé là-bas mooy anarchie ah il faut qu'on ouvre les marchés les nouveaux marchés pour que les gens de guerre puissent puissent rentrer travailler mm-hmm. on doit leur donner encore des endroits mm-hmm. ay endroits yu mun a liggéey des désencombrement bi mu ngi commencé mercredi bi ñu génn nara nag wëy ba fépp foo xam ne rek oto wala sax di table képp koo xam ni nag yaa ngi nekk ci rek yoon wi ci anam bu jaarul yoon dinañ la fu génnee ci nu mu gën a gaawee Fatoumata Touré ñu jeexale ak tàggat yaram ak CAN 2023 sunu gayndee football yi xam ngeen ne seen poul bokk na ca euh, waa Guinée ak waa Gambie xam ngeen ne itam ci li national euh, mooy euh, équipe nationale bu Guinée waaye fii ci Sénégal nag dafa am ay doomi Guinée yu takku yu fiy dund ñooñu itam ñenn ca ñoom jàpp na rek jàpp rek jàpp nañu ne ngeen baal ma seen yi football kat mën nañoo dóor suñu gaynde yi ñeneen ña itam am nañ ci eh, xel mu tey soxna Suju Sarr ak Alioune Diagne ñoo waxtaan ak ñoom. waaw su ma gis gi daal poule boobu poule de guerre la du yomb diggante Guinée Sénégal Gambie Cameroun ñeenti ñooñu maanaam ñeenti ñi kenn ki mooy favori Sénégal mais nag du yombee noonu ndax ay rival lañu Guinée du bàyyi Gambie Gambie du bàyyi Guinée Sénégal du bàyyi Guinée Guinée tamit du bàyyi Sénégal am na du yomb. ak sama xalaat ak li ma gëm pour li ñuy boole ak Sénégal Sénégal moo leen mun à 100 pour cent ndax lan Sénégal fu mu toll équipe bi mu yore sous région bi kenn yoru ko fi de un deuxièmement euh, lu mu am sous région bi équipe bi kenn mënu ko am. kay lu ma gis kay ñooñu ay doom baay lañ ku gañe kay moom laa faral kay waaw waaw que ñoo bokk. derby la parce que ay pays voisins lañu. waaw ñoo bokk lépp frontière ak yooyu yooyu quoi quoi. non y' a pas de derby amu si derby mooy koo xam ne da di présenté mais fu mu nekk. aywa euh, mu ngoog mbokk yi fii lañu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci seen euh, cofeel seen safo ak seen qualité fii ak ay simili yu néew Sara Cissé dina fi teew ci xibaar yi ci français di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkk ci yéen.